ñu ngi nuyu bépp auditeur u FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak euh, rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre vingt dix point cinq rawatina seen émission euh, sociale toute la ville en parle samedi bu jot dix heures jàpp onze heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle fas yéene waxtaane beneen thème d'actualité di émigration clandestine ñu fas yéene ko waxtaane ak tamit élection locale yooyu le ngir nag amal waxtaan ci mbir mi moo moo waral ñu dalal euh, kile nag euh, di Pape Samba Tall jiite euh, mouvement Sen Diaspo Sen daañu waxtaane exactement mouvement boobule lan moo ko daal di waxal ak tamit ay révélation yoo xamante ni kile di Pape Samba bëgg na ko def ci wàllum immigration ak koppar yi nga xamante ni souvent Union européenne daf koy jël di ko jox réewu Sénégal ngir lutter li nga xamante moom mooy immigration clandestine maanaam tukki bi nga xamante ni yoon yoon xale yi nga xamante ni souvent euh, dañuy jël yoonu suuf bi wala ñu jël géej gi ainsi de suite ba ñu baree bari euh, tout le temps di si ñàkk seen bakkan ak problème mu emploi des jeunes daañu ko aborder ak suñu invité bile di Pape Samba ñu lay nuyu di la dalal jàmm. Euh, asalaamaaleykum soxna Ndeye Soxna. Ndey Kumba Ndey Kumba <laughs> waaw Ndey Kumba Moreau mm-hmm. tur bi aussi c' est Serigne Samba mm-hmm. mm-hmm. soxna Ndey Kumba maa ngi lay nuyu. di la sant di la gërëm euh, di la remercier ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a ñëw fii ci réew mi FM mhm. mën cee waxtaanee ay thèmes yoo xam ni comme immigration clandestine nga xam ni c'est un phénomène qui interpelle tout le monde mhm. nga xam ni dafa doon euh, mbir moo xam ni ndërmal na àdduna donc nag ñi ngi yaakaar ni lu luñ fi wax rek xëy na dina doon loo xam ni luy jariñ réew mi lay doon jariñ askan bi. voilà kan mooy Pape Samba Serigne Samba Tall plutôt kan mooy Serigne Samba Tall. waaw Serigne Samba Tall nag euh, dafa nekk doomu sénégalais boo xam ni euh, il a fait presque vingt deux ans en Europe fa laa nekkoon fii laa defee mes études au niveau de Kaolack. Mhm. fii laa defee sama primaire secondaire euh, defee fii nekk fi université Cheikh Anta Diop de Dakar. après jóge fii dem en Lille defee foofu sama formation en journalisme en action commerciale mm et puis pratiquement après dem en Italie dem en Espagne mhm. euh, bon expérience boobu yëpp ñu am magasiné mhm. bon moom la ñu toogoon ñun ak suñuy xarit euh, ñu xëy ne dañuy créer benn mouvement boo xam ni euh, seen jaspo seen la tudd mhm. mouvement boobu nag li ko wund mooy dañoo gis ni luy des ci bakkan ci àll bi dafa bari ñu ne comme que ñun bon nous avons vécu en Europe. Mhm. nañu dellu si waat fii Sénégal jéem a sensibiliser jeunes yi waxtaan ak ñoom sensibiliser parents yi jéem a rencontrer les autorités étatiques. pour jéem a xool nan la ñuy def ba lutter contre l'immigration clandestine. maanaam li leen poussé euh, ba nga fondé mouvement euh, seen Diaspo seen mooy ni ngay gisee jeunes yi di faatu euh, ci géej gi wala yow expérience bi nga xamante ni jot nga ko def Europe. waa ñaar yëpp ah parce que mhm. expérience bi ñu am en Europe moo ñuy wan ni. Mhm. Euh, nit war naa mën a tekki fii war naa mën a toog ci dëkkam tekki fii mhm. ndax ñun moment yi nga xam ne ñu doon voyager pourtant bàyyi woon nañ fi ay suñuy naataango yoo xam suñu ay moroom lañ. ñoom demuñ. fii lañ toogoon te yàlla suturaal suturaal na leen ba am nañ fi seeni teraanga quoi xamal leen ne leen tukki. naam baax na mais toog ci dëkk yi tekk fii am na. mais aussi voyager aussi euh, tout un chacun war na war ngaa mën a am opportunité boo bëggee génn. nga daal di génn. Mhm. ci biti pour mën léegi seen Diasposen naka ngeen ko fondé bi ngeen koy fondé ban objectif la am ban année nga ko fondé ban objectif la am. waa seen Diasposen nag bi ñu koy formé ñi ngi ko formé en 2017 te bi ñu koy formé ñi ngi ko formé en Espagne. Mhm. te bi ñu koy formé wax dëgg yàlla dañoo toogoon ñun ay bonne volonté suñu ay xarit yoo xam ni toogoon nañ. Euh, gis fa ay image yoo xam ni yu horrible yoo xam ni. en 2017 euh, en 2017. Mm-hmm. yi nga xam ni ñu xool xale yi ni ñu doon duggee. Mm-hmm. Euh, reportage yi gars yi defoon ci miir bi nga xam ni fa la gars yi di jaaree. Mm-hmm. affaire bi daal métti ñu métti goo xam ne daal. touché leen touché ñu. boobu yow yaa ngi fan Espagne Italie boobu man maa ngi Espagne. waaw parce que man damay def la navette entre Espagne Italie ak France quoi parce que. mais activité dañ ma doon permettre damay génn di dem Espagne euh, di damay damay bouger daal mm. en tout cas moo tax euh, le mouvement dañ ko internationaliser ba nga xam ni mm. nous avons des représentants un peu partout dans le monde aux États-Unis am nañ fa des représentants Euh, en Belgique en Italie am nañ daal des représentants un peu partout léegi nag loolu bi mu ñu mettee ñu mm. def suñuy investigation ah waxtaan ci suñu biir ñu ne ah ñun kat wax dëgg yàlla comme que nous sommes des purs produits du Sénégal war nañu yàlla may nañu sutura ñëw nañ fii ci Europe bi am nañ mm. naam am nañ ay documents. Mm-hmm. am nañ ci possibilité vivre feeg loolu lépp mais looloo war a tax nag ñu jéem a retourner waat au pays dem ci phase de sensibilisation bi waxtaan ak jeunes yi euh, xalaatal leen jéem ak avec nos partenaires étrangers yoo xam ne am nañ foofu waxtaan nañoo ak ñoom. ñoom pare nañ pour ñëw aider aider ñu si teg immigration bi ñun li ñuy xalaat ne moom moo ko gën moo gën a tax mu perdurer. mooy chômage bu chronique bi nekk fii ci dëkk bi ak sous emploi bi. moom moo gën a tax xale xëy na xale yi. peut-être après si loolu. mais euh, tur bi naka la euh, originalité wu tur bi Sen Diaspo Sen. waaw lan la signifier exactement. voilà originalité tour bi mooy. xam nga nous sommes euh, dañoo jugee Sénégal. nous mm-hmm. sommes partie du Sénégal mooy scène bi quoi. Mm-hmm. dem vivre dans la diaspora am fa expérience yoo xam ni wax dëgg yàlla yàgg na ndax doomu aadama fu mu def vingt ans. Mm-hmm. yaakaar naa ni xëy na am nga fa am nga fa vécu daal war nga faa mën a xam dara. Euh, euh, scène bi mooy Sénégal diaspora bi mooy la diaspora. beneen scène bi mooy. Sénégal dellusiwaat bi mooy mooy ñi nga xam ni. dañ fay jugee woon dem dans la diaspora. dem gëstu fa uti fa xam-xam am fay expérience ba pare dellu si waat Sénégal pour bëgg koo sottantal ak ak ak ak waa Sénégal aussi seen diaspora yi limité wul euh, bi. dañuy intervenir aussi sur les conditions de vie yu métti yi nga xam ne moom la émigré yi di dund en Europe. Mhm. yooyu yëpp it aussi dinañ ci revenir. ay Sénégalais de la diaspora de la diaspora yi ñu fay dund. Mhm. ay problèmes yu ñu am di ko exposé yoo xam ne wax dëgg yàlla. bu ñu mooy jafe-jafe wu yi nekk si diaspora bi. Ah, Euh, jafe-jafe sénégalais de la diaspora yi bon bu ñu leen doon énumérer fii duñ fi jugee mais dañ ciy tànn. ay mm-hmm. ay ay quelques yoo xam ne rek. Mm-hmm. yu yu yu yu yoo xam ne. yoo xam ne daal vital daal vital yoo xam ne daal. ñu ñu jàppale leen si ñu jàppale leen bu baax a baax a baax a baax a baax bon ñe xam naa ne dama koy tënk ci ñetti poñ. Mm-hmm. ñetti poñ yi mooy lan benn bi euh, l'obtention de passeport. mooy jumtuwaay bi nga xam ni moo mën a tax nga jot sa carte de séjour wala nga mën a voyager wala nga dem fenn dama lay jox un exemple maanaam pour nga am sa passeport comme sa passeport bu jeexee waaw voilà comme sa passeport bu jeexee mhm. wala amago passeport nga war a dem euh, dem defari ko mhm. je crois que ni damay joxe un exemple rek Italie laay jël benn exemple rek tey consulat bi ak ambassade bi mi ngi nekk à Milan mhm. am na ñoo xam ne ñi ngi dëkk rajo Calabria ñi may déglu. te mhm. nekk en Italie dinañ xam euh, mhm. li may wax lan la quoi. Mhm. tey rajo Calabria boo ko doon xool moom ak Milan ça doit faire plus de mille kilomètres. te yow da ngay liggéey ñu may la benn fan ne la danga war a dem defari sa passeport nga daw sa mille kilomètres dem ba ca ambassade ba ñu ne la tey vingt personnes lañ war a jël wala trente personnes lañ jël trente personnes yooyu jeex na. da ngay nga delluwaat parce que. sa liggéey mooy sa teranga ci ngay suturloo ci ngay terale sa njaboot mhm. doo fa mën a toog di jëlaat beneen fan benn fan lañ la may ci sa mhm. liggéey nga mën a dem mhm. au moins waroon nañoo mën a am aimabilité bu toll ni ay nos représentants diplomatiques ñu xoolaat ci loolu euh, euh, jàppale nit ñi ba nga xam ne ña nga xam ne ñoo dëkk au fon fond dans le sud de l'Italie même quitte à ce sax ñu andi benn point boo xam ne bu nekk à Rome bi nga xam ne moo nekk ci diggante bi ñu mën di seen passeport yi foofu noonu di dellu te passeport boobu noonu tey jii boo ko amut booy dem di jëli sa séjour duñ la ko mën a jox parce que passeport mooy document boo xam ne moom moo la mën a permettre. nga mën a jot sa séjour nga mën a am si yeneen document nga mën a am sa yeneen document yi nga. xam ne donc sénégalais yi passeport dañuy sonn. dañuy sonn trop. c'est un problème problème boo xam ni métti na trop trop ñi ngi leen di ñaan am na ñoo xam ne sax xam naa nañu mujj def. Mhm. dañuy ñaan ay sauf-conduit ñëw ba Sénégal ñëw defar si passeport pour mën a delluwaat. naka lay demee. mooy supposons xam nga boo amul euh, bu sa passeport réeré mbaa mu jeex. mun nga dem naka ngay def ba ñëw sans passeport. au loolu sauf-conduit lañ koy wooye da ngay dem ci ambassade bi ñu bind la ni sa passeport dafa jeex wala sa passeport dafa réer te da war a ñëw Sénégal danga nga am urgence boo war maanaam nga ñëw Sénégal. ut si fi passeport moo gën a yomb ambassade bi defaral la ko mu defal la ko moo gën a yomb sauf-conduit la gars yi di ñaan di dem. ñëw fii defar passeport ba pare delluwaat delluwaat. mais ban explication la leen ambassade di jox. par rapport à mais mais amul explication parce que xam nga lu tax. Mhm. yow tey jii bi nga boo jugee euh, ba rajo Calabria nga dem di defari sa passeport. Mhm. mais boo demee ba foofu ñu ne la tey ñi ñu war a jël jeex na wala wala nga déposer ko fa mu mën a durer ay ay temps bu baree baree baree baree baree. Mhm. loolu aussi ñi ngi ci ñaax les autorités étatiques. ñoom ñu intervenir si ba nga xam ne ku soxla passeport boo demee la même jour ñu defaral la ko nga dem ñibbi. parce que it aussi ñoom les représentants diplomatiques yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans les consulats mm-hmm. ñoom sénégalais yi lañ fa nekkal parce que da ngay dem des fois aussi foofu noonu ñu la fay traité yenn traitement yoo xam ne vraiment. comme comme quoi. bon expliquer ñu xam. cest à bon mën nga dem ba et puis euh, renseignement yi ngay soxla ak information nécessaire yi nga yi nga soxla doo ko mën a am quoi parce que des fois ñu ñàkk la kersa des fois et puis ñu dañ lay jàppee nit ñoo xam ne comme des illettrés yoo xam ne dañoo ñëw te xamuñ ni. Mm-hmm. y a des yoo xam ne ñi ngi foofu noonu. ñoom ils sont pas plus méritants que ñi nga xam ne ñoom ñooy dem di fa wuti ay passeport ak yooyu. Hmm. xëy na la représentation diplomatique ñoom ñoo leen ñoom ñoo leen yóbbu foofu. pour ñu représenter fa Sénégal mais sénégalais yi nga xam ne ñoo fa nekk it. ñoom dañ leen a war a que hmm. ñoom ils sont payés par l'argent du contribuable sénégalais joxuñ cër sénégalais yi euh, am consulat yi daal des fois da nga fay dem di lijjanti ay papiers traitement bi ñu lay traité dafay xaw a doy waar. Hmm. et nag ñu leen di wax ne leen ñun. fa nga dëkk yow ñoom tey ñoom ñoo fay Sénégal ñoom ñooñu ñoo war teeru nit ñi parce que ambassade nit ñi amuñ fa soxla xam nga lan moo la fay mën a yóbbu mm. nga am un pro document administratif booy lijjanti wala leneen mais sénégal yi wax dëgg yàlla seen seen problème yi bopp da na a préoccupé papa ba nga xam ni mm. ñoom amuñ temps sax naan dañuy dem ci ay consulat wala ay ambassade mm. passeport moo leen fay yóbbu wala ay ay ay ay légalisation yooyu nag war nañ leen ko mën a yombalal ba nga xam ne bu ñëwee mm-hmm. ñu jot ko ba pare mën a muy benn ci jafe-jafe sénégalais diaspora yi ak ban encore deuxième jafe-jafe mooy euh, problème mu permis de conduire problème mu permis de conduire dama ci intervenir ndax euh, bi ma demee la fois dernière en Espagne ndax euh, le mois passé rek maa ngi woon Espagne dama fa demoon une réunion de seen diaspora seen boo xam ne dañoo demoon pour la base dem waxtaani foofu noonu ak situation yi la ma fa waxtaan ak ñoom ñaaxaat nañ ma ma bis bu la yàlla yóbbuwaatee ba nga dem ba am ay opportunité nañ ñu dimbale. nga wax nga wax ci mbiru permis yi. permis yi mbiru permis yi nan la demee. waaw permis de quel est le problème. voilà euh, problème mu permis de conduire yi euh, c'est-à-dire damay jël l'exemple de la France ba pare dooro dellu siwaat en Espagne l'exemple de la France boo demee nga nekk un étudiant nga yegg fa yore permis boo yoree permis mën nañ la permettre sur les un an ou deux ans nga dawalee sa permis Sénégal en tant que étudiant. Mhm. mais léegi boo changé statut. maanaam boo nekkatul étudiant. waaw boo nekkatul étudiant dem statut bon beneen motif boo xam ne may nañ la ci carte de séjour. Mhm. loolu sur les euh, si un an bi da ngay dem bu nekkee sa séjour bi moo mag. Euh, sa sa permis bi moom moo mag sa séjour comme supposons nga am permis Sénégal avant ngay ñëw boo demee mhm. ñoom facilement dinañ la ko changer mais au dootuñ la ko changé la ti bu ko xasee ba dépassé deux ans pour nit ñi jàpp lool. Mm-hmm. en Espagne ñun da ñëw am sa permis sénégalais. boo mm-hmm. yeggee duñ la ko changé. mais boo gisee les algériens les marocains ñoom dañoo signé seen gouvernement yi dañu ak gouvernement dañoo signé ay convention yoo xam ne ñoom bu ñëwee dañ leen di changer seen permis auparavant mm-hmm. daan nañ ko changer sax yu Sénégal yi parce que je j'en connais des yoo xam ne changé noonu nañ mais bon ñu ne xëy na sénégalais yi dafa am ay permis false yu ñu fiy andi fer fer faux permis yoo xam ne baaxul mhm. ba tax ñoom nag ñu arrêté affaire boobu ma ne leen léegi loolu dina handicapé ñu bëri parce que yow da ngay am liggéey xam nga en Europe ay autoroute moo fa am mën nga dëkk Kaolack di mm-hmm. liggéey see Dakar c'est deux cent kilomètres mm-hmm. parce que mën nga en deux cent kilomètres ci autoroute mën nga koo daw ci deux heures de temps ci dawal bu normal laa la ah, boo mm-hmm. xam ne tu da ngay sur cent vingt ou cent dix kilomètres ah, a waxuma sax ay cent quarante exagération léegi si loolu nag yow tey boo amee fi nga nga am sa liggéey bu baax di ko liggéey yore sa oto mais boo yoree sa permis Sénégal bi ngay def fuñ la jàpp dañ lay arrêté buñ la arrêté nga taxaw ñu ne la an sa permis espagnol nga ne ma permis espagnol ñu la ñu multu la mbaa ñu téye la ba tardé la liggéey foofu. Mm. looloo tax nag ñuy ñaax ñun suñu autorité yi. ngeen bëgg ñu def ci permis yi exactement. permis yi mm. li ñuy ñaan autorité yi ñu fexee ba ñoom euh, signer convention ak état espagnol ba nga xam ne ku am permis bu valable bu normal bu baax mais ñu changé la ko. ñun ñii état espagnol ak union européenne. non mm, parce que état bu ci nekk gis nga la France ñoom xam nga ñu ngi changé. ñi ngi changé te l' Espagne ñoom changé wuñ. kon donc nag ñi leen di ñaan comme non non yi ñoom ñu ngi may la possibilité. les africains ñuy mën di changer seen i permis ñu ñaan état Sénégal mu signé convention yooyu ak ak état espagnol ba nga xam ne mhm. nit ñi dinañ am seen permis parce que ni ñaa ngi passé permis sax mhm. man je donne mon exemple man dama damaa jàng mhm. ce sont trente questions lañ lay jox nga trouver trente questions yu théorie bi pratique aussi nga def ko parce que ñun nit aussi bu nekkee dañoo nekk ay activistes nekk ay nit ñoo xam ne dañuy yëngatu sur le plan social ci mm. information yi dañuy bëgg a nekk en adéquation avec le réew ma soxla mm-hmm. ba nga xam ne ëllëg si bi dañuy doon des ambassadeurs ba nga xam bu ñu demee foofu noonu mm. image du Sénégal bu rafet la wone mm-hmm. parce que duñ fa nekk ci naka sudul noonu mbaa ñu nekk fa ci loolu parce que sinon kon li ñuy doyee dootuñ dootuñu am njariñam quoi dañoo bëgg doon des exemples yooyu xam ni fu ñu mm. toog di wax rek ñii dinañ xam ni. Mm-hmm. ñi ngi représenter dignement la diaspora sénégalaise. Mm. en quelque sorte ak ak ban problème surtout tamit euh, question wu euh, sénégalais yi nga xamante ni souvent dañ leen di faat bitim réew am na boo si gis mu marqué la et puis dañuy gis ni dossier judiciaire yi euh, souvent du am suite du am dara rey nañ benn sénégalais bitim réew point final fàtte nañ ko wax si benn une semaine c'est waaw loolu ñun am nañ expérience am sax en Espagne bi nga xam ne fa lañ nekk benn suñ benn xarit ñi ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ñoo dëkkoon benn kër en Espagne te di nom de Morcilla Morcilla mhm. mi ngi dëkkoon Salaw en Tarragone moom il am dafay am ay problème ak justice ak kii ak euh, ay policier dañoo dugg ci kër gi mhm. bi ñu duggee ci kër gi ñu jekki-jekki ñu ne dafa tëb daanu ci kii ñu ne la dañ koo bëmax ñu def euh, une plainte waxtaan ci xool depuis deux ans ngi nii affaire bi amul am amul suite. Mhm. moo lay wan ne aussi bon ñun euh, les sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk dans la diaspora aussi seen seen seen vie daal. Mhm. dafa mel ni c'est pas protégé quoi parce que tey jii nii. tey bu doon doomu français moo dee ci àll bi wala doomu Espagne ñoom dinañ ci ouvrir une enquête judiciaire boo xam ne dinañ ko topp ba jusqu'au bout. Mm-hmm. mais ñun nag les sénégalais pratiquement liñ fa am ci ay problème mooy loolu. donc nag mais lu tax du ngeen organiser ay marches. ci non organi non jour. organiser manifester carrément pour sénégalais yi ñuy faat bitim réew muy leer. non cas bi ma lay wax bi mu amee. Mm-hmm. ku seetaan télé di nga gis ni moment yooyu. pratiquement euh, dañoo manifester ay quatre ou cinq jours yoo xam ni sax mm-hmm. jour boobu noonu mm-hmm. pratiquement gouvernement espagnol li mu perte ci xaalis kenn xamul lu mu toll parce que train bi sax gars yi dañ ko arrêté woon bis dawul train dawul supermarché yi tijjiwuñ donc ñu manifester suñu ras le bol expliquer loolu mais nag sans suite la ñëwee quoi franchement sans suite la ñëwee woon mais daal ñu ngi ñaax les autorités étatiques daal ñu gën a renforcer la diplomatie sénégalaise yi gën a jege Euh, population yi te xam ne ñoom bu ñu demee foofu noonu. Mhm. ngir ñun ñoo ñun ñoo tax sénégalais yi fa nekk ñoom ñoo souvent sénégalais yi nekk si diaspora bi def fa dix ans vingt ans trente ans quarante ans commencé jël jëm mag euh, bëgg a ñëwaat investir fii mais dañuy gis ni souvent du yomb loolu lan nga si mën a wax. waaw ñun retour immigré yi. voilà ñun. Euh, sénégalais diaspora de la diaspora très bien ñun ñu ngi ci waxtaan suñu mouvement ñu ngi ci demander des audiences ak le directeur de sénégalais de l'extérieur. le ministre des affaires étrangères pour ñu travailler ñu ci benn fee aussi loolu aussi doléance boo xam ne la. Mm. les immigrés joxoon nañu ko mooy. beneen waaw parce que bi nga ma relancé nii. ak mm. même pas ñibbisi bi investir sax parce que aussi da ngay gis sénégalais boo xam ne da ngay dana liggéey pendant trente ans en Espagne. Mm-hmm. Euh, boo retraité sa retraite mënoo koo fayee ko fii Sénégal. retraite bi Espagne rek. foog nga toog foofu foog foofu di ko di ko fayal. boo ñibbisee da nga koy ñàkk da nga koy ñàkk. ce qui n'est pas normal parce que yow bu nekkee yow liggéey nga sa ñàkk la loo xam ne dañ la ko doon dagg ci sa salaire ñu la koy bàyyil foofu ci yoon war nañoo mën a négocier ba nga xam ne comme dëkk bi amutoon liggéey ba nit ñi daw dem wuti liggéey à l'extérieur naam nañ ñu dimbale ñu jàppale ñu ñu signéel ñu papier yooyu waxtaan parce loolu waxtaan la rek loo xam ne la yow yaa ko moom sa alal la mhm. ñu defal ñu ko ba nga xam ne tey ji sa retraite mën ngaa ñibbisi di ko dund fii paisiblement ñu di la ko si fay si parce que loolu loolu bokk na ci seen doléance yu ñu gën a metti nag doléance boobu ci la que on a eu des yoo xam ne am na fi ay pas yoo xam ne dañoo waxtaan ak ñoom ñu ne ñu mu wax dëgg yàlla ñoom seen seen retraite yi mënuñ mhm. koo fayeku si fii te boo toogee fii lu yàgg te boo defee parce que la loi espagnole lim la may mooy bu nekkee da nga un séjour boo xam ne séjour mm. un an deux ans la mm-hmm. six mois nga am droit def ci dëkk bi mm-hmm. bu nekkee da nga am un séjour euh, indéterminé boo xam ne c'est cinq ans Euh, un an nga am droit def fi mm-hmm. donc je crois que ni yooyu yëpp dafa doon ay affaires yoo xam ni état bi war nañu ci mën a dimbale te laa diaspora dañ leen war a reconsidérer waat quoi comme que dem dem nañ leen ba def leen quinzième région kon donc je crois que ni war nañ leen mën a jox dëgg ñoo nga xam ni chaque année dinañ apporter quatre mille chaque année dinañ apporter quatre mille milliards yoo xam ne dañ ko fi dugal te quatre mille milliards yooyu fii diaspora di dugal dafa doon loo xam ne mooy procédé yu normal yi ñu leen wax de mooy yi nga xam ne mooy transfert d' argent yeeg affaire demee noonu bokkut ak yi nga xam ni nit day toog fa jox nit foofu xaalis jox ko deux millions wala trois millions ñoom ñu joxe la xaalis bi fii te hmm. pratiquement yooyu sax ñoo ëpp yi feeñu sax ñoo ëpp kon donc mën nañ koo estimer ay cinq mille wala six mille milliards yoo xam ne gars yi dinañ koy dinañ koy apporter ci mm. Sénégal bi te au retour gisuñu fi benn benn yoon boo xam ne rek amuñ benn ouverture boo xam ne rek dinañu mën a permettre ñun ñu mën a extérioriser liñ bëgg wala ñu mën mën mën fee am doole parce que da ngay dem ci àll bi liggéey liggéey liggéey liggéey ba fatigué ñibbi si fii da ngay reprendre à zéro te xaalis boobu nga xam ne moom la ñuy dugal mais mën nañu koo matérialiser bu ñu defoon benn banque boo xam ne wala ñu defal ñu benn fonds boo xam ne dedd pour les émigrés yi nga xam ne dañoo retourner mm-hmm. là gars yi dinañ ci mën a dem parce que Europe ku leen xam di nga xam ne les Européens ay liggéeykat lañ émigré yi bu fi ñibbisi rek boo ko mayee xel tuuti mbaa nga may ko nopp déglu ko rek mën na laa tegal benn projet boo xam ne di nga xam ne lii lu leer nañ la loo xam ne dina dina dinañ ci mën a jàppandiku pour mën a jëmale Sénégal ci kanam voilà mais mais euh, que, comment dirais-je Serigne Samba Tall naka nga gisee liggéeyu euh, Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières léegi yéen li tax ngeen teg seen kuréel da ngeen a sentirul seen bopp ci Boubacar Seye wala qu'est-ce qui se passe naka nga gisee liggéey bi muy def frère ma xarit la suma mag la te damay recevoir des conseil ci moom dañuy waxtaan maak moom mm. chaque jour. waaw plateau yi ma jot a dem yëpp. kon tax ngeen def seen kuréel munoo leen wu ñëw rek. adhéré ci xam nga non loolu ba léegi amul problèment ah. mun nañoo dem ba fédérer fédérer le mouvements yi nga xam ne yëpp ñoom ñooy. xeex contre immigration clandestine. parce que moom moom moo ñu tax a ñeme sax parce que moom dafa nekk suñu mag nekk suñu xarit nekk suñu doyen boo xam ne wax dëgg yàlla Euh, diaspora bi ñi ngi koy féliciter. Mm-hmm. et puis immigré yëpp ñi ngi koy féliciter ci liggéey bi muy def te liggéey bu mucc ay boo xam ne séntuwu ci dara dafa doon liggéey boo xam ne da koy def ak cœur def ko ak ay xol quoi ñi ngi koy remercier di ko sant di ko gërëm di ko xamal ne ko. Mm-hmm. ñun nous sommes de tout cœur avec lui. Mm-hmm. bi mu fi amee ay problème le mouvement dafa jug def des déclaration wax dëgg yàlla wax ni lii muy dénoncé dafa doon bi ñu ko waaw dafa lii muy dénoncé dafa doon loo xam ne cause bu noble lay doon te li muy wax c'est la triste réalité parce que xam nga problème bi mhm. li nga xam ne moo nëbb woon lépp ci affaire Union européenne ak immigration clandestine da koo teg Boubacar da koy da koy feeñal parce que euh, je crois que ni entre mille 2009 entre deux mille cinq ba deux mille neuf union européenne dugal na fi presque cent quatre vingt mm-hmm. millions d' euros. Mm-hmm. loolu boo ko xaymaa xam nga ñaata lay doon. Mm-hmm. presque trois cent milliards de francs CFA yoo xam ne union européenne dugal na ko fi pour la lutte contre l' immigration clandestine. mais yow li ngay wax ni yan preuve nga si am. lu mel nii la fi Boubacar Seye waxoon ñu ñu jàpp ko teg ko de mais loolu loolu loolu du ay document confidentiel loolu boo duggee ci site euh, euh, Union européenne bi nga xam ne lutte contre l'immigration clandestine boo demee sax sur Google boo tapé da nga ko fay du ko fan fan nga ne fan boo demee fan dama ne demee lutte contre l'immigration clandestine boo génnee dinaa la jox ay lien yoo xam ne yow boo ci duggee di nga gis ni lii ñu du suñuy wax Union européenne moom moo wax loolu moom moo Union européenne moom moo jël somme xaalis boobu noonu mhm. mu injecté ko fii ci Sénégal fii ci Sénégal pour ñu lutter ko contre immigration clandestine. si si ci naka. maanaam dañuy jël xaalis bi jox ko état wu Sénégal wala dafa am ay projet yu ñuy financé. non non expliquer ñu xam. ñoom état parce lu mel nii la fi Boubacar say waxoon après ñu jël ko eh, yóbbu ko ci kaso bi après fan la mujjee mais loolu fan la mujjee. mais yow est-ce que am nga ci preuve. waaw mais dama ne la. yow document yoo. xam ne nga ne ñaata milliards la. cent dix-sept millions d'euros. ça veut dire combien de milliards. kooku pratiquement ça tourne autour de trois cent milliards de ci diggante ba laal na ci gouvernement Ablaye Wade laal na ci gouvernement Macky Sall. kon entre cinq ba deux ba deux mille dix neuf. mais su ko dugalee fii ci Sénégal maanaam naka lay xeexee émigration clandestine ay projet la wala qu'est-ce que. non mais xam nga la situation. mooy ñoom ay procédés yoo xam ne la ñuy def pour ne. dañuy xeex immigration clandestine mën nañ ne euh, nañu apporter euh, somme yi pour euh, ñu def ci achat ay ay ay ay ay flotte yoo xam ne dinañu mën a permettre. Mhm. ñu xeex ko. wala ñu ne ay ay ay ay ay ay hélicoptère yoo xam ne moom la war a xeexee affaire bi mu doon matériel boo xam ne day xeex immigration clandestine wala ñu ne xaalis bi nga xam ne bu ñëwee dinañ ci teg des projets yoo xam ne dina mën a tax jeunes yi dootuñu tamati waaw mais projet yooyu amul benn jeune wala benn mouvement boo xam ne day lutter contre l'immigration clandestine bu taxawagum ne état du Sénégal financé nañ ñu temps ci xaalis pour ñu mën a xeex affaire boobu. Hmm. je crois que ni looloo tax na ñoom li ñu bëgg mooy ñoom li nga xam ne les autorités étatiques sont interpellées. Hmm. mooy lan ñoom nañu génn ñu def dee déclarations wane ni. Hmm. Union européenne xaalis bi nga xam ne moom la fi dugal. wala ñu ngi koy jox jeunes waaw ñu ngi koy jox jeunes yi wala waaw ñun ñu génn ñoom def des déclarations wane ni xaalis bi nga xam ne moom la ñuy xeexee contre immigration clandestine te. Euh, euh, Union européenne dugal ko fi xaalis bi nii la demee wala nii la demee wala joxuñu xaalis andi ñu ay demande yi ñun ñu xam ne lii ñuy wax fii la tegee. Mhm. ñun loolu moom moo ci da ngeen a bëgg état wu euh, génn. expliquer carrément xaalis bi ko Union européenne di jox pour mu xeex wàllu immigration fan la ko dugal. voilà loolu nag boobu dina non seulement dina leer ci suñu bët. waaw ñun ñi nga xeex bu dee dañ see la. naka la la demee. waaw de ce fait nga xam ne dañuy xeex immigration clandestine ba pare di représenter les immigrés ñun dinañ am kàddu boo xam dinañ mën a taxaw kat ne leen ah xeexu immigration clandestine bi kat état bi lii la ci def. fii la na ngeen bëgg ñu jox leen seen wàll rek. non non ñun. yow est-ce que jox mais nous sommes après. nga non non wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. ndax ah, ah. yaakaar naa déglu ma la ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax yaakaar naa ñun. Hmm. tey bu nekkoon ut koom rek moo ñu tax a jóg ñun dañuy rester en Europe bi nga xam ne am nañ fa des des séjours indéterminés. Hmm. am nañ fa ay permis yóbbu nañ suñuy famille yóbbu nañ suñuy doom am nañ ay ay couverture maladie universelle fu ñu bëgg a liggéey suñu intelligence may nañ ñu liggéey fa dañuy toog foofu. Hmm. di liggéey di sant yàlla di lekk lu neex di naan lu neex tegale suñuy tànk duñ participer ci affaire mais ñun suñ fibre patriotique mhm. moo ñu laal ba nga xam ne lu laal Sénégal dañuy laal parce que ñun mënuñoo nekk fee di dund suñu lu ñuy neex ba pare bàyyi suñu peuple ñu nekk fee di dund dans la souffrance loolu moo ñu andiwaat fii ci dëkk bi ñuy xeex pour nit ñi nekk à égale dignité ñun loolu la ñuy xool léegi da ñibbisi ñibbi si wala da dem di ñëw qu'est-ce qui wala da nga ñëw pour xeex. man damay def la navette entre l'Espagne et parce que aussi foo xam ne am nga am nga fa ay documents fa famille Mm-hmm. xam nga say doom juddoo fa aussi bon di nga di nga mën à chaque fois di fa dem di dellu si mais euh, présentement li ñu def mooy ñun dañoo retourner mm-hmm. pour participer activement ci li nga xam ne moom moo soxal doxaluñu réew mi ak li nga xam ne condition de vie yu métti yi nga xam ne moom la les immigrés di dund en Europe ñu ciy xeex ba pare nag di jéem a apporter suñu jéem a bokk nag ci organe de décision yi nga xam ne moo ñuy mën a permettre mm-hmm. suñu amee des partenaires étrangers yoo xam ne ñoo nekk en Europe ñu jéem leen a andi parce que pas plus tard que li ñu gën a tax sax ñu engagé wu te xam naa dinañ xuus sur le plan politique di nga dem ñu bëgg a engagé wu sur le plan politique mm-hmm. commencé xeex mooy ñun dañ fay dem euh, en Espagne des hôpitaux yu nekk foofu noonu may ñu fa matériel médical boo xam ni après dinaa la envoyer les documents nga xool ko bu baax baax may ñu fa lu mat ay des lits de réanimation benn lit de ranimation ça coûte 4 millions CFA ñu may ñu ci 6. 6 lits. may ñu lu mat trois cent cinquante verres yëpp may ñu fa ay machine échographie way ñu ay ordinateur ay table banc. Mhm. léegi bi ñu ko mayee ñun xam nga. ngeen nag ngeen def yéen. non on évolue au niveau de le matériel est là-bas disponible ñun on évolue. ana matériel bi mi ngi en Espagne. ñëwagul non non du mën a ñëw parce que dama lay expliquer procès bi tax mën dagut a ñëw bi ñu ñëwee dem nañ saisir euh, la municipalité de Kaolack avant ñuy ñëw sax lañ leen envoyé des documents xamal leen ne ne ah ñun kat bon donation yëpp a ngi fi ah mm-hmm. donation boo xam ne dañu ko may du loo xam dañ koo jënd wala dara dañ koo yëkkati hôpital mooy changer matériel am bëgguñoo may matériel boobu léegi xam nga loolu bu ñu ko defee ñun dañuy dañuy dañuy andi suñ participation ci li nga xam ne moo soxal Sénégal moo soxal euh, gox ba nga xam ne lañ dëkk mm-hmm. ñun bi ñu ñëwee on a on a eu à discuter avec le maire au niveau de ñu xamal leen ne leen ah ñun kat dañoo am benn don de matériel boo xam ne bu ñu may l'entreprise de Sen Diasposen mm-hmm. ak euh, su beneen association boo xam ne a Fatick la nekk quoi un ami boo xam ne ñooy travaillandoo ensemble euh, je le salue de passage Dame Boub la tudd quoi ñoo nekkandoo bi ñuy dem ñu joxandoo ñu matériel léegi bi ñu leen wooyee wax leen ko ne yaa matériel médical boo xam ne euh, dañ koo bëgg a andi te ñu bëgg mooy il faut que yéen les autorités étatiques ngeen defal ñu ay papiers yu wane ne donation bi fii lañ ko war a andi. Mhm. bu ñu defee noonu te et puis le matériel ça tourne autour de. benn conteneur boo xam ni euh, mën na jël conteneur u quarante billets en quelque sorte mhm. ñu budgétiser leen affaire yi defal leen lépp ne leen ñun wuñ ci dara li ñuy def mooy mhm. na ko la mairie jël en charge ñun ñu chargé ko ci conteneur bi andi ñu ne d'accord bi ma ko joxee toog nañ amuñ amuñ réponse amuñ réponse bon j'ai un mois en Espagne quand je suis revenu ma ñëw bi ma ñëwee dégguma ba un jour laa toog rek bon un conseiller technique du maire woo ma ne ma maire bi moo ma joxoon sa numéro nee na naa la woo pour le matériel médical là bon soo mënee ñëw fële ne à la mairie ñu toog réunir hmm. mais ma toog ñu demee li ma lay wax nii ça doit faire ay sous bon un mois wala deux semaines yooyu quoi léegi bi ñu demee toog ma ne leen le matériel est là amul problème ñun amuñ ci benn problème li budgétisé nañ ko lépp lii la te bu yegsee mm-hmm. exonération douanière donc lay fay te exonération douanière c'est deux cent cinquante mille CFA loolu amul benn problème parce que autorité ñun mënuñ ko mm-hmm. parce que xam mm-hmm. ñun dañoo yor benn mouvement boo xam ni bon mouvement bi du mouvement boo xam ni bon tey boo tey sama mouvement mouvement bi tey bu doon andi ay matériel tey boo loo fi munti andi conteneur it da ngay fay normalement comme une personne normale mais bu dee nag municipalité la ñoom ñu xam ne lii dafay dem bii social la ñoom dañ la koy kii parce que nit ñi dañ fay yàgg andi ay matériel yoo xam ne mm. au lieu buñ ko andee dañuy ñëw ne exonération la ñu defal leen exonération ñu génn dem def seen affaire di jaay affaire demee na te ñun nag amuñ intention ay matériel médical ñu di ko jaay parce que xam nañ ni suñ doom di ci sonn nag ay affaire parce que bu dul dara yërëm nañ suñuy mbokk ndax hôpital lii de réanimation boo xam ne suñ mbokk mën na ci tëdd hôpital bu Kaolack bu Kaolack mhm. mais amoon na yeneen répondant yoo xam ni yeneen yeneen yeneen mécènes yoo nañ leen quoi mais nag dañ ne comme ñun Kaolack lañ dëkk tey wax dëgg yàlla au niveau local la ñuy évoluer ñu ne bon nañ ko yóbbu foofu bi ñu demee bon ma ñu réunir bi ñu réunir pare ñu ne ma le conseil municipal va se réunir pour pour pour wax moom ba xam dina juger moom mooy juger nécessaire ba xam da koy jël ak du ko jël. Mm-hmm. ma ne no lii man nag vraiment man dama mujj taxaw ndax xamalu tax mm-hmm. loo xam ne la yow da nga koy ñëw dañ koo soxla hôpitaux yi nekk Kaolack ma il paraît maa ngi dégg nag d'après mes information ñu ne ma hôpital bu Kaolack. Hmm. benn lii de réanimation la. moom moo fa nekk moo fa nekk benn lii hmm. ñun ñu am quatre lits de réanimation six lits. ba ko indi noonu bëgg koo andi noonu gratuitement te benn lit di jar quatre millions. ma ne ma ne ma dootuma ci waxaat parce que ci yoon ba ñu déggee loolu rek lañ ne waroon na ah, jaratu ñuy wax dara loo xam ne la lu baax moom kenn waru koo caaxaanee. Hmm. jusqu'à présent j'ai pas eu tey jii te le matériel ñi ngi ko dugal dans un magasin boo xam ne ñu ñooy jël suñu xaalis di ko fa fay. di ko fa fay te loo xam ne dañu koo may rek amuñ ci soxla loo xam ne la wax dëgg yàlla bëggoon mu ñëw jariñ suñu suñu dëkk la. mais mais mais à part Kaolack amul ñeneen ñu ngeen ko proposé. bon am na ñeneen ñu ko proposé mais ba léegi amul répondant quoi ba léegi amaguñu réponse tey ba hmm. joxuñu leen benn explication. non non joxuñu benn explication même au niveau de Kaolack jusqu'à présent xam xëy na équipe municipale bi moo réunir agul jusqu'à présent waxaguñu dara donc nag looloo gën a tax nag ñun. Mhm. ñu ne dañuy impliqué sur le plan politique boo xam ne tey bis bi ñu bokkee ci organe de décision yi. xëy na dinañ doon des représentants yoo bu ñu demee à l'extérieur bu ñu fa décroché des ki ah, ci titre yooyu bu ñu ñëwee dinañ ko mën a ñëw servir ko jox ko askan bi ñu jariñoo ko voilà ñu ngi leen di fàttali yéen ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey ji Ndeye Comba Moreau euh, dalal Serigne Samba Tall Serigne Samba Tall nekk njiitu euh, mouvement seen Diaspo Sen euh, Serigne Samba Tall lan ngay wax souvent jeunes yi nga xamante ni ñu ngi fii Sénégal mais seen rêve lenn kese la dem Europe dem états uni Euh, d'Amérique ainsi maanaam génn réewu Sénégal moom mooy seen réew parce que jàpp nañu tant que génnuñ euh, du ñu mën a tekki comme ni ñu koy waxee. waaw loolu moom pratiquement. lan leen di wax est-ce que euh, en Europe tout est rose c'est l'Eldorado exactement. waaw toujours damay intervenir mm. sax ci oto ci côté boobu di ci mm. di ci di ci di ci di ci expliquer que ni le mythe de l'Europe. Mm-hmm. mooy favoriser ak le mythe de l'Amérique mooy favoriser jeunes yi di def seen xel foofu quoi parce que lu tax. Mm-hmm. bon dañuy xool rek damay damay joxe des exemples yoo xam ne dama ne fiction yu gars yi tegal gars yi ñu exporter ñu les films européens yaa yónnee ñu ko fii. Mhm. ñu toog nii ci seen i piscine mbaa ñu teg ay barbecue toog mhm. tegale seen tànk. et puis mais du loolu mais loolu amul Europe. Mhm. loolu ay film la mais les européens luxe boobu ngay wax sax ñoom dunduñ ko. dunduñ loolu de mais ñun ñooñu koy ñoo ñuy def des rêveurs. di ñu vivre ci ay utopie woon ne ne la tout est c'est l'Eldorado te or Europe am na fa ñoo xam ne jusqu'à présent su ma la waxee ne la passe bu leen fa jëlee ñibbisi moo leen fa téye maanaam bëgg nañoo ñibbisi mais mënuñoo ñëw am na ñoo xam ne amuñ fu ñu dëkk ci ay suufu station train des sénégalais yoo xam ne je les connais parfaitement yoo xam ne amuñ kër yu ñu dëkk parce que boo demee Europe tey jii comme comme comme ni gars yi di demee nii euh, la dernière génération bi mujjee dem nii mais ils ils éprouvent d'énormes difficultés parce que xam nga lu tax mm. tey kër yi boo yeggee seen kër yi ngay fay location da fay courant da ngay fay ndox mm-hmm. te boo amul liggéey te boo yeggee pour nga insérer c'est tellement difficile moo amoo document amoo dara duñ la jël ngay liggéey ay jaay moo fa amoon nii di wër. déjà ñi am document sax c'est un pour ñu am liggéey. ñi am document sax mënu ñu am liggéey waaw fan lañ jëm ñooñu nag ay jaay ngay def te jaay yoo xam ne tubaab bi jëndatuñ gën a sonn fi ñu toll nii parce Covid bi da leen a touché ba nga xam ne nii tey jii ngay gis nit koo xam ne mën nga xëy une dem di jaay doo mën a jaay sax loo loo lekk. Hmm. tey jii nag fi nga dëkk boo ko mënta fay nooy mujj def mais da ngay génn boo fooy nekk. ci mbedd mi pas plus tard que avant-hier rek j'ai eu à discuter avec euh, des gens yoo xam ne ñu ngi nekk en Grande Canaria cas cas immigration nag foofu la gën a méttee. Mm, bu clandestine bi. bu clandestine xam nga ñoom waaw foofu ñu taxaw foofu parce que foofu ñoom. Mm-hmm. foofu la gaal yi di teeree quoi. Mm-hmm. gaal yi jugee au Maroc wala ñu jugee Mauritanie. ñoom ñu ngi teere îles Canaries la ñuy teere îles Canaries plus exactement ay Tenerife la ñuy teer wala ay Las parce que bu nekkee dañoo jugee Maroc. Mm-hmm. Ah, euh, presque tàllal bi matu sept euh, matul sept heures de temps pour ñu dugg. Mm-hmm. dugg bi euh, mi ngi mi ngi nekk entre xam nga dugg bi dafa doon euh, am na ñu ngi ex maa ngi wax aussi. Mm-hmm. suñ mbokku sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk au Maroc nekk foofu ay passeur nañ xoolaat ci yàlla. xoolaat ci xoolaat ci ci ci seen seen si seen patriotisme bi nga xam ni. Mhm. moom lañ war a yor. Mhm. bàyyi affaire bi ñuy encouragé parce que. Mhm. maanaam lu tax nga wax. maanaam dafa am ay xale yoo xam ni. gars yi dañoo nekk fële di leen woo ne leen bu ngeen ñëwee Maroc fii ak 2 millions CFA da ngay dugg. parce que ñun dem nañ. ñun dem nañ ba Maroc dem nañ ba visiter nañ xam nañ. ni gars yi di jaaree dañuy wax dañuy dem Maroc pour jaaree Maroc dem Europe. voilà parce que porte la porte la mais porte boo xam ne sa bakkan sax mën na cee xaj. parce que lu tax na la boobu da ngay toog fi ñu ne la boo ñëwee Maroc euh, euh, bateau lañ lay dugal yow nga jaay sa fond de commerce fii dagale sa xaalis bi nga jotoon am yëpp dem au Maroc boo yeggee ñu yóbbu la ci ay ay fi nga xam ne moo jege moo jege tefes yi daal tefes yi mooy fi nga jege plage fi nga mën a tegee. Mm-hmm. te xam nga dañ la naan ay bato la mais xas nga ba dem ba pare sa ngor mënatulaa may nga dellu si booy ñu fa waxtaanal yëpp man j dem naa fa ba waxtaan fa ak ay jeunes yoo xam ne ba Maroc ba dem fa gaay yi di nekk man def naa Dakhla def naa Tiznit def naa Marrakech def naa amul ville bu ma demul pratiquement au Maroc amul Las Palmas aussi amul benn ville bu ma fa demul dem naa Tenerife dem naa Lanzarote dem naa euh, euh, Las Palmas. Mhm. lépp rek dans le cadre des activités de seen diaspora pour xool di di xool di gëstu ba xam nan la nan la jeunes yi di dundee foofu Maroc bi dañuy ñëw xam nga lan lañ leen di tegal bu ñuy dem ci gaal yi mhm. ay zodiac xam nga zodiac mooy lan mhm. zodiac mooy genre genre flotte flotteur yooyu la quoi mooy mm, affaire yoo xam ne waaw dañ koy manq waaw dañ koy manq ba pare xoolal teg ko noonu rek gars yi daal di ciy dugg di dem te xoolal mun na bënn ci yoon bi boo gisee li dee ci yoon bi Euh, am na benn cabinet d'étude bu nekk euh, vous vous rappelez en 2013. Mm -hmm. à Lampedusa ça te dit quelque chose. Lampedusa c'est la côte italienne. Mm -hmm. en 2013 ñaari bato yu gaare yoo xam ne dañoo demoon foofu noonu. Mhm. yóbbu ay ay ay ay Sénégalais subsahariens. 368 personne ñoo ci nekkoon. mais bi ñu demee affaire bi li des ci géej gi ëpp bi ñu leen sauvé ba pare li des ci géej dafa am benn cabinet boo xam ne. organisation mondial de l' euh, de l' moo ko moo ko moo ko moo ko benn moo ko joxoon benn cabinet. Mm-hmm. bu koy saytu boo xam ne un certain marque moom moo doon def euh, contage mm-hmm. mais bu ñu la doon waxee ni ñu defee contage yu moor yi nga xam ne ñoo des ci géej mais euh, c' est horrible. Mm-hmm. ay xalool entre deux mille entre deux mille quatre ba ay deux mille dix neuf yooyu compté nañ fa lu mat ay trente mille morts. yoo xam ne moom lañ compté yu des ci géej gi. xam nga ne kon peut-être ñun suñ crème bi nga xam ne moom lañ amoon. maanaam instant bi ñu xale yu bëri dañuy xaru daal. mais dañuy xaru quoi dañuy xaru man nee naa la bi ma demee à Las Palmas noonu ba gis fa mais j'ai vu des gens yoo xam ne am nañ seen ay master en droit ñii am seen i master en économie. Mhm. dugg ci gaal yi dem seen yoon donc nag. politique bi état bi war a def mooy lan. Mhm. ñu jéem a xool nan la ñuy insérer les jeunes yi nga xam ne ëllëg si biir ñoom ñoo war a gàdduwaat réew mi. cette crème là bi nga xam ne ñoom ñoo waroon a toog fii war a doon élitu dëkk bi suba war fee doon ay président de la république war fee doon des présidents de l' nationale war a nekk ñi nga xam ne ñoo war a ngënk réew bu nekkee ñoom ñoo dagg dugg ci ay gaal di dem je crois que ni dinañ dem ba ci kanam tuuti Euh, dootuñ amati ay ay ay ay jeunes yoo xam ne ñoom ñoo ñuy préparé wu en mais mais souvent li tax euh, tout le temps euh, phénomène bi di gën a jël ampleur malgré sensibilisation bi ngeen di def da ngay gis ku nekk foofu ne waaw c'est vrai Europe métti na crise bi mais fii tubaab bi soo ñëwee ci soo soo suñ la sauver si bateau yi ainsi de suite dinañ la jox logement dinañ la jox lekk dinañ la jox naan ba en tout cas danañ la toppatoo parfois sax danañ la insérer ba tax ñu bëri loolu la ñuy dégg après ñoom ñu ne dañuy dem. non non loolu moom euh, dernière phase bi la loolu dernière phase bi la te dinaa ci expliquer xam nga dernière phase bi mooy lan. Mhm. bon euh, je crois que gis nga immigration clandestine bi gis nga les côtes marocaines les côtes libyennes. Mhm. ak les côtes kii nii sénégalaises yi bu ñu bëggoon mu jeex. Mhm. dina jeex parce que xam tax. jeunes yi bu ñuy dugg c'est la complicité de la marine marocaine mooy tax ñuy dugg. parce que passeurs yooyu ma lay wax nii tey jii ñu dem nii. Hmm. passeurs yooyu ñoom dañuy am nu dañuy nekk en connivence avec avec les autorités marocaines da nga yaakaar ni ñoom tëb dugg nii. Hmm. mais contrôle yu sévère yi nga xam ne moo nekk ñoom ñooy def des fois ñu yolomal pour mën cee lijjanti de l' argent. Hmm. gars yi dugg des fois ñu dëgëral affaire bi noonu la demee parce que it aussi booy da ngaa yaakaar ne dañuy dugg noonu ak zéro franc. dugguñu ak zéro franc de. booy dañuy fay pour mën a dugg. dañuy dajale xaalis dañuy dajale xaalis fay soit au niveau local ñi nga xam ne ñoo yore gaal yi ñooy fay leen. au au niveau marque passeurs yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoo nekk en connivence avec des les la marine marocaine ñu fay leen xaalis ñu bàyyi booy ñu daal dugg te bu ñu duggee nag. Mm-hmm. mais nag euh, croix rouge leen di jël te croix rouge nag moom c' est indépendant ñoom xam nga loolu lañ de ñoom dañoo taxaw foofu noonu pour. action humanitaire la ñuy def dañuy dañuy dañuy sauver ay bakkan. Mm-hmm. bakkan bu traversé géej nag ba reste ba yegsi xanaa doo ko tëmbalaat ci géej gi ne ko deel te ñoom ñi ngi xeex affaire boobu loolu mooy phase terminale bi phase terminale bi moom boo fa xasee ba yegg moom wax dëgg yàlla mais bala ñoo mais bala ñoo yegg foofu mhm. bul xam lu ñuy xaaj bi yëpp ay dee boo gisee ñuy jaar ci suuf di dem ay ay ay ci kii bi ni ko miir ba xam naa am na benn miir bu ñuy wax mélia mhm. foofu moom travers miir bi mat naa mat lu war a tolloog ay dépassé na deux mètres et quelques am ay barbelé tey boo fa demoon no mais franchement da nga naan non non nekk te pour ñu yegg ci miir bi rek mën ngaa dox lu war a tolloog ay trente wala quarante kilomètres léeg-léeg sax benn xale ndax may nettali. Mhm. nee na ma ñoom am nañ seen benn xarit boo xam bi ñuy dox noonu ci ci désert bi noonu di dem Melilla ci kii bi dañoo jékki-jékki rek benn gars yi def faux pas tànk bi dam bi tànk bi damee moom mënuñ koo boot di ànd ak moom di dem mënuñoo dëppandoo ak moom. mais d'après ñoom information yi ñu am dañoo toog ba biñ demee ba dugg. Mhm. woote nañ Sénégal ñu ne kooku dee ko rey. mais nga nekk ci désert boo xam ne àll boo xam ne amoo fa loo lekk amoo fa loo naan sa tànk damm na foofu nga toog mais nooy def mais ay conditions yu horrible la gars yi moo tax jeunes yi ñun ñu ngi leen di exhorter de grâce nañ bàyyi yoonu géej gi ñuy jaar ak hmm. yoonu suuf bi ñuy jaar c'est pas la meilleure solution te lii problème bi nag mooy les autorités étatiques ñoom nañ góorgóorlu jéem fee samp des usines de transformation jéem a le problème de l'emploi na ko état bi jéem a lijjanti ndax jeunes yi mën a toog fii ci dëkk bi normal damay ñëw aussi ci l'obtention visa hmm. Euh, gis nga bu ñu bëggoon éradiquer un peu. phénomène phénomène clandestine bi. Mhm. dañuy xalaat ni l'obtention d'un visa ñu gën koo wàcce ndax Sénégal tey jii boo fi amul un compte bancaire bu bien garni wala nga nekk une autorité dans ce pays wa nekk nekk ci gouvernement wala nga nekk ci dara mënoo am visa parce mhm. visa boo xam ne tey da nga war a fay soixante a pour ñu jox la un visa nga ciy fay ay quatre millions CFA mhm. xam nga loolu c'est de te ñi koy def mooy des gens yoo xam ne dañoo nekk en connivence avec les ambassades dugg fa di la visa jaay la ko 4 millions CFA mm-hmm. mais bu ñu defoon tey jii ku ko def kon heure bi yooyu dina fi jugee nañ bàyyi ab pratique yooyu ñuy def quoi tey jii nii état bi bu ñu newoon tey jii nii bon ku am deux cent mille CFA da ngay ñëw joxe caution ci benn ambassade. Mm-hmm. nga joxe fi sa caution ñu jox la sa visa nga dem yërndu boo nekkee un tailleur nga nekk Europe nekkul sa dëkk du lu la neex. Mm. mais nga dellu waat mais tant que ngi bunkeriser affaire yi di wane ni affaire bi di lëndëmal affaire yi booy dañuy bëgg di dem toujours. mais bu nekkoon tey jii ku bëgg a dugg mais les européens bu ñu bëggee ñëw fii mais amul mythe de l'Afrique. du am mythe quoi da dem xool mais doo fay sa 4 millions 5 fois dem dugg Europe boo doon dee foofu sax doo dellu si dafa am ay phénomènes yuy concourir yoo xam ni moom moo la nar a fatt ba nga xam ni tey ñemewoo ñibbisi parce que seen waa kër ña ngi la yaakaaree ni ña ngay xaar nga tabax kër mm, mm. ña ngay xaraar nga yor dépense ba ña ngay xaraar nga dawal oto defar defarloo te boole seeg aussi Europe nañ xam ni question de chance aussi da cee nekk ndax di nga gis koo xam ni dafay jógee def fi deux ans trois ans ñëw rek tabax kër xëy na mun naa yegg yàlla suturaal ko mu dal ci jigéenu tubaab bu xaw a tane mhm. mu takk ko mhm. mu jàppale ko wala mu dal ci liggéey bu baax mu jàppale ko yow ka nga sa xarit ba nga xam ne yéen ñaar yéen a takkaloo woon kër nii mhm. yow nga tabax kër gi yaayee mag sa yaay daan ànd papa mag sa papa doon ànd ñoom ñu lay influencer naan la yow kii a ngi nii bërki démb la nga toog fii di xoole mais ñooy xaruloo seen doom yi kon donc parents yi aussi dañuy am part de responsabilité loolu bàyyi parce que a am yàlla moo koy joxe nit ñaa toog fii ci dëkk bi di tekki nit ñaa ngi dem loolu donc nag je que nit nañ bàyyi seen doom yi ñuy ñaax pour ñuy jaar ci yoon bi di dem. mais mais ñu si bëri bu ñu yeggee si tool yi lañ leen di yóbbu dañuy bay te jeunes yi fii nangootuñu bay au Sénégal loolu lan nga siy wax. non problème mu tool yi aussi it euh, am nañ ci benn benn benn njàngat bu ñu ci bëgg a def. aussi quoi en en Espagne parce que problème mu tool yi dafa doon loo xam ni tool yi ñu ngi nekk Andalusia yàlla tool yi nekk quoi. Sénégal mus na fee signé ay convention yoo xam ne ak euh, Espagne sax euh, mus nañ koo def Euh, dañ doon def euh, euh, des contrats saisonniers. Mhm. yoo xam ni main d'œuvre africaine bi ñoom dañ ko soxla woon. léegi bon c'était du temps de Abdoulaye Wade moment yooyu sax le mon ami et frère Abdou Khafour Touré moo nekkoon directeur de l'ANEJ quoi. Mhm. da nga doon dem ci CDEPS yi nga bindu boo bindoo ñu kii la quoi mais l'information passé wutoon bu baax ba nga xam ni. Mhm. mujj gi bi li siy desee dañ koo mujj def dañ koo mujj def le clientélisme politique rek dañoo mujj woo seen. seen seen kii seen waaw seen kii rek seen seen militants yi mm-hmm. daal leen di jox affaire yi ñu dem mais bañ demee lañ ca jëlee neexu leen parce que xam nga lu tax mm-hmm. c'était des contrats saisonniers yoo xam ne six mois nga fa war a def daal di dellu si waat maanaam six mois ngay dem nga liggéey sa liggéey ñu fay la sa xaale jox la say ndàmpaay nga dellu si nga ñibbi si waat léegi nag six mois yooyu kenn ñibbisiwul boo fa desee doo am këyit waaw mais mais ñëwul kenn dellu si wut parce que xam tax mm-hmm. procédé bi ñu jaaree moo baaxul ndax euh, y a des argentins yu fa nekk ak ak ak ak mu Amérique latine daal Mm-hmm. yoo xam ne ñoom it dañoo signé ay convention ak gouvernement espagnol yoo xam ne dañ leen defal des contrats saisonniers mais renouvelable lañ ciy def mm-hmm. mooy yow ren da ñëw liggéey si bu jeexee nga dellu sa dëkk def fa 6 bu saison ba commencé nga ñëwaat léegi nag sénégalais bu ñu leen defaloon noonu ne la nga chaque nga dem benn somme boo xam ne la mën a permettre nga monter dara fii mm-hmm. donc nag li ñu leen di wax loolu ñu ngi ci travailler aussi waxtaan ak les autorités étatiques ba nga xam ne dinañ recruter des jeunes yoo xam ne dinañ mën a dem ca tool ya di mm. dem di de l'euro bi dina denc ñoom bu ñu demee dañ ay salaires yu baax bu six mois jotee lay fay la nga fa jotoon a liggéey fay lay say ndàmpaay fay la say liquidation yëpp nga daal di ñibbi boo ñibbisee nga mën a suturlawu dimbali ci sa bopp dimbali ci sa njaboot mais jeunes yi bañ a liggéey euh, bay ci sa dëkk ba pare bëgg a dem dëkk tubaab bi di fa bay waaw mais xëy na contexte le contexte n'est pas le même parce que dëkk tubaab bay yooyu ñu lay fay équivalence su pratiquement lañ la fay fay équivalence su salaire u lay doon fii wala mu doon salaire parce que lu mu dee dee bay ba ngay bay foofu noonu mën na laa fay journée cinquante euros wala mm-hmm. loolu la fin du mois ça tourne autour de mille cinq cent wala mille six cent euros. Mm-hmm. loolu mais c'est un million CFA par weer donc mbay moomu ak mbay moo xam ne da bay fii bu saison bi yëpp jeexee mënoo dajale deux cent mille wala trois cent mille CFA it aussi. loolu ça vaut pas la peine looloo tax gars yi bu ñu demee foofu. temps bi pratiquement jeex na peut te dañ lay laaj ci élection locale yi nga xamante ni euh, pratiquement moo occupé actualité bi ñu ngi koy waxtaanee euh, liste yi candidats yi ban xalaat nga ci am euh, yéen ngeen engagé wu localement dans la région de Kaolack lan nga ci mën a wax. waaw li ma ci mën a wax rek mooy ñun au niveau de Kaolack dañ fa monter benn plateforme boo xam ne Kaolack moo ñu ñor lañ ko tuddee. te plateforme boobu ñu ngi ko composé ak lu war tolloog onze organisations socio-professionnelles des partis politiques te amul coloration politique nag ah. Mhm. parce que ñii am na ñu bokk APR. am na ñu ah, bokk par politique ne amul coloration politique. non plateforme bi laa wax. Ah. dama ne mhm. amul kii fii la far kee fee kee la far mooy. am nañu bokk parti socialiste plateforme bi nu mu tudd. Kaolack moo ñu ñor. waaw léegi am nañu bokk parti socialiste am nañu bokk ICS parti Ablaye Balde am nañu bokk APR am nañu bokk PDS plateforme boobu ñun dañ ne. Mhm. au niveau de Kaolack jéemuñ faa am coloration politique parce que xam nga lu tax tey jii boo nee man sama yaram dafa tàng man maa koy yëg man mi dëkk Kaolack du président Macky Sall bi nekk ci palais bi moom moo koy yëg kon donc ñun duñ ne. ay président moo ñuy tànnal ay ko nga xam ne mooy doon maire ñun les Saloum Saloum dëkk Kaolack ñun ñooy xool ki nga xam ne yaakaar nañ ne tey jii nii buñ ko joxee maire bi insalubrité bi dina dañ sécurité bi dina am assainissement bi dina dox ñu ne kooku la ñuy xool ñu jël maire bi ñu daal di ko koy jox mais duñu xool koo nga xam ne ci bii parti la bokk fii la bokk léegi nag choix boobu. Mhm. ñu ngi ko président Serigne Mboup. lu tax ngeen tànn waaw li tax dañ ne euh, tax ñu tànn président. ngi dóor de. non dóoruñ. da ngeen di dóor de non dóoruñ. déggu ma la seen plateforme tànn Serigne xam nga lu tax parce que milliardaire la. non non du loolu. parce que na mhm. ñetti alternative moo amoon au niveau de Kaolack soit. Mhm. plateforme bi ñun. dañuy doon ay spectateurs yoo xam ne dañuy ñëw seetaan lu gars yi def baax na soit dañuy xool candidat boo xam ne daf ne leer ni moom ci boppam instant bii dina doon koo xam ni dana yëkkati xaalis jox ñuy gundaan ndaat di def lu ñu neex maa ñu ko soit mhm. ñu ne Kaolack dong moo ñu ñor amul intérêt crypto personnel amul dara ñu xool candidat boo xam ni Kaolack moo ko ñor te dafa nar a fas liggéey teg liggéey bi ñu àndandoog moom liggéey te loolu dañ ko gis en la personne de Serigne Mboup parce que xam nga lu tax mhm. tey jii nii Kaolack boo fa demee mhm. lieu de divertissement bu fa am boo xam ne yow mën ngaa jël say doom yóbbu leen fa mais moom moom ma ko defar boo demee cœur de ville de Kaolack tey moom defar na fa télé defar na fa rajo ay doomi Kaolack di fa liggéey tey moom ay moyens boppam la ko liggéeyee parce que moom tey jii nii amul benn position étatique bu mu war a am wala benn mbiru état boo xam ne yore na ko moo ko tabax ak xaalisam ak xaalisu boppam mm. la ko tabaxee moom ci boppam ak xaalisu boppam mu teg ko fa te fa telem def fa rajo mais ces responsables politiques yi nga xam ne ce sont des milliardaires nekk au loo xam ne nee nañ la ñoom ñoo ko fa defar moom bu dul dara sax jël na ay initiative am ñëw ne wax dëgg yàlla te moom ku ko xam-xam ni carnet d'adresse bi nga xam ne am na ko mhm. au niveau international dina andi des partenaires étrangers yoo xam ne dinañ fa monter des usines dinañ fa monter parce que ñun bëgguñ politique gu dem toog bu samedi jotee ñu ubbi suñ bundu kër yi mhm. xale yi ñëw ñu di leen jox junne yooyu xamal la lañ bëgg mhm. politique boo xam ne da ngay def des emplois nit ñi di liggéey am seen dignité am seen honneur boo xam ne duñ ñëw di la ñaan dara waaw mais déggoo li ñu la dama ne la. waaw moom il lan lan mooy programme programme mooy lan mooy ay ambition pour la région de Kaolack. pour la région de Kaolack non seulement euh, ni nga ko wax assainissement bi nga xam ne xam nga tey jii nii port de Kaolack bi hmm. moom ci boppam jël na engagement pour réfectionner ko. loolu rek c'est un nakki boo xam ne bis bu ñu ko amee moom dalay leen ne camion yi nga xam ne ñooy jugee ci port Dakar camion malien bi yëngal li ñuy def ci a ay ay dégâts ci kaw tali bi. Hmm. li ñuy rey lépp. Hmm. tey jii camion yooyu tey. Euh, bagage yu malien yooyu ak guinéen yooyu yooyu nga xam ne dañ daan jóge port de Dakar di dem di traverser suñu route bi di rey suñu doom yi di yàq suñu tali yi bu pooru Kaolack bi ubbee conteneur yi dinañ mën a jóge à l'extérieur di jóge di jaar Kaolack di jóge bu ñëwee ba Kaolack mhm. di jóge noonu di dem Gambie nga xam ne dinañ épargner tali bi te it aussi usines yi nga xam ne amoon na foofu au niveau de Kaolack fa amoon yooyu yëpp yooyu da leen di tijjiwaat te bu leen tijjiwaatee ay jeunes yi Kaolack ñoom ñoo fay liggéey temps bi jeex na tàkk gisuma yi am na émission buy commencer léegi léegi waaw mais di leen sant di leen gërëm xam ni di leen wax ni li li li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li mhm. te yaakaar naa ne xëy na dinañ fi ñëwaat jëmmi jamono mhm. pour gën a mën a expliquer waat ci affaire immigration clandestine di leen sant di leen gërëm di leen xamal ni se waa mouvement seen jaspo seen nag seen adresse mi ngi fii xam naa seen numéro dinañ ko joxe ñi bëgg a ci mouvement bi ñu adhéré ci te xam ne loo xam ne c'est mouvement citoyen boo xam ne lu soxal askan bi rek mm. ci la bëgg a wax ak loo xam ne condition de vie yu métti yi nga xam ne moom la immigré di dund ak xale yi nga xam ne dañoo nar a dem ci géej gi ñu di leen masaw pour ñu bañ a dem ci géej gi euh, euh, ñu koy remercier bu baax a baax ak yéen suñuy auditeur ak Diawa Diallo bi nekkoon jaa ngeen jëf